man maay euh, ki nga xam ne maa àndoon ak benn délégation ñëw di déposer benn lettre mairie bu Dakar Plateau nga wax say nervi ñu noq ñu noq ñu noq ñu ba xotti tubéyu coordonnateur u Dakar bu FRAPP te mu tudd aadama Diatta ndax lan dañ doon déposer benn lettre pour yow déposer lettre rek lettre boo xam ne dañ la wax ne avenue Faidherbe na nga ngir yàlla soppi turam bu fekkee xamoo kuy Faidherbe monsieur le maire Alioune Ndoye ministre de l'environnement FEDER bi mooy ki nga xam ne Iba Der Thiam yàlla na ko yàlla yërëm te mu àndoon ak yéen nee na si juróom-ñetti weer FEDER bi rey na vingt mille sénégalais kooku ngeen tuddee benn avenue damay joxe benn misaal FEDER bi 18 euh, janvier avril. janvier 1855 dafa taal Bokkol mars 1855 12 morts à Marsa et à Oudoumba mars 1855 mu mu rasé Bakel mun naa continuer noonu ay misaal ak ay misaal vingt mille personnes la Faidherbe rey Sénégal pour France samp drapeau wam Sénégal ñu continuer di ko jox tur avenue Faidherbe biir Dakar benn monsieur le ministre de l'environnement comme nag bëggoo ñu recevoir mairie de Dakar Plateau je n'avais pas d'autre choix te xam ne bés du ñàkk fii laa la koy waxee waa Dakar Plateau yëpp xam ne Faidherbe ku bon la woon ngay continuer di langaamu ci Faidherbe d'accord nga téye ko foofu euh, ci benn avenue bu ñuy woowee avenue Louis Faidherbe pour ñeen ñi nga xam ne xam naa ne dinañ ma tontu 18 juillet 1800 1864 Faidherbe détruit tous les villages du Bossé du Bossé du Bossé Yabé du Fouta kooku fi défendre. yaa ngi défendre sa musiba kenn du wax koo xam ne da doon rey sa maam ñu ne nga jël ñu ne nga jël turam nga bind ko ci sa yaram avenue boobu jox leen ko tur bu leen neex mais bu leen ko woowati Faidherbe monsieur le ministre euh, de l'environnement les sortants de l'école nationale du centre national de formation de Djibélor nee nañ deux mille vingt mu ngi amoon yaa ngeen waroon recruter soixante agent techniques des eaux et forêts ngeen recruter trente neuf ngeen war a recruter deux mille vingt et un cinq ATEF maanaam agent des techniques agent technique euh, des eaux et forêts ngeen recruter neuf. 2022 ngeen am quota de recrutement bu 60 agent techniques des eaux et forêts 29 wala 30 wala 28 ngeen ci jël. annoncé nga ne war ngeen recruter juróom benn téeméeri agent des eaux et forêts mais agent technique dañoo am problème man ma fekk si leen ci seen problème naka ngeen di amee benn quota mu am ñoo xam ne dañoo génn ci école bi nekk des diplômés sortant de l'école de Djibélor du ngeen leen recruter or il y a maa la ko laaj yaa ma tontu junni ak ñaar fukk ak ñaar agent ñooy aar àllu Sénégal yépp mille vingt-deux agents mu am ay sortants de l'école de Djibélor vous ne les recrutez pas les sortants de l'école de Djibélor nee nañ fii laa koy waxee xaw ma ndax dëgg la xam naa di ci indi ay tontu dafa am ay maggu yi ci nekk da ngeen di jaay place yi maanaam yi des yi dangeen koy jaay dangeen koy séddoo seen biir d'accord di ko jënd di ko jaay ñoom nag ñi nga xam ne ñoom ñooy les sortants diplômés de l'école de Djibélor comme du ñu ay doomu borom mbarke comme ay doomu béykat lañu doomu ouvrier lañu ñoom ñu toog di seetaan. monsieur le ministre loolu foog ñu régler ko ce sont des sénégalais bokkuñu APR bokkuñu benn bokk yaakaar bokkuñu yeewi askan wi bokkuñu wallu ay sénégalais lañu ñu formé ñu soxla leen. monsieur euh, monsieur le monsieur le ministre euh, un euh, million garab la ñu faagaagal ci Casamance ak feneen ak feneen tey la ñu gën a soxla suffisamment d'agents des eaux et forêts. forêt classée bu mbaaw tout le monde sait que c'est menacé il faut ñu wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci boppu état bi fu ñu gis suuf ñu jël te bañuñu sax laal ay forêt classée nit garab mun na din mun na dund te nit amul waaye nit mënul dund te garab amul nañu sàmm suñu ay garab dafa amoon euh, benn politicien boo xam ne saay buy saay buy commencer discours wala mu koy jeexal day naan delendo Carthago maanaam il faut détruire Carthage man damay naan nañu bàyyi sàcc alalu askan wi te dugal ko ci sàmm l'environnement et le climat des Sénégalais je vous remercie